طبيبي قريب هل سقامي تسمع Abdoulaye Ndiaye ñu gënoon ko xam ci Ndiaye Koutia doon liggéeyee ca groupe boobee ñu naan Futur Média daal dinay dudd àdduna ci talaata yi tay ji jàpp ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mai mu mel ni tiis la bu sénégalais yi bokk rawatina askanu aar ay kàddoom yu mujj doonoon mësuma tooñ bu amee itam nañu ma baal seede yi doon benn teg si rafet lool bàyyeekoo ci ay mbokkam ak i naataangoowam groupe Xibaar 221 ci sama kàddu ñoo ngi koy jaale sénégalais yépp te di ko ñaanal fa mu jëm gënal ko fa mu jóge dama am ndey dama am baay am jabar ami doom te sama doom yooyu ñaan naa yàlla ëllëg seen baay am way wu rafet kon man xeeb ma kenn wu ma kenn musuma togn nit te kuma mësa togn neena la baal ma وخلفي جموع ينتمون